ajab bi borom RDB bëgg naa la. Thiatou Rebeus tey yaa ngi ci làmb ji koo àndal. waaw tey man en tant que amateur mais amoon naa ci mbër na di ñaanal Roubé yàlla may ko ndam xam nga di encouragé bébé xool xam ne làmb noonu la quoi di ñaanal jaww gi sama doom yaa yàlla defal ko ndam. waaw nice kay billaahi. nga ci defet ba léegi gisaguñu nga jël avance lu waral loolu. waaw léegi rek xam nga man da xale laa am na boo fa jógee da ngay loolu na sa ruqu liggéey xam nga boo ñëwee marqué retour bi mais su ma ñëwaatee gars yi xam ne yelmin bi ñëw na doomu Rebeus ak bool ñëw na nice billaahi caatu rëbës ma dem ba Guinée Bissau fekk fa Franc mu am lu mu wax ci boobu daa war taxaw. ban Franc la. Franc mbër. waaw Franc champion la. jaago jool bi. non 4 combats 4 victoires yi. waaw la mi ngi lamb di bay waaram ma ne ci lamb di bay waaram. bu ñu waree bëreeg dinañ bëri ci kàttanu yàlla bu ma ko yàkkamte ndaanaan la ku ma nawloo la nag ku ma rafetal ku jox cër la waaw ki la defaral daan ko ñoom ñaar dañoo bëree vingt cinq minutes kenn mënul daan sa morom loolu dara ci làmb ku ne làmb leen boole yaag moom non bu ko def foofu loolu dara ci làmb man ku ma dama la fiy bàyyi yow gis nga man li may deko leen Franc bu bëggee bëre bëggee rek mi ngi rëbës Léopold mi ngi rëbës dañoo yëpp ñooñu ma xam laa bëgg gannaaw ñu may ma chance yow doo ngaa nga xam baax li ma lay wax kenn laaju la pour Franc mbër kenn contacté moom moom Franc kenn mësuma koo wax grand yi laa bëgg ñu may message grand te yàlla xam ne kenn contacté wu ma kenn contacté wu ma Franc bu bëggee bëri moom champion la ku ma naw loola mais Rebeus am na yaa moom baat ak tontu la waaw waxu mbër la rek loolu garaawut waxu mbër la xëy na foofu la toolu mais wala ma wax bii bi lamb oto bi kam la ñu kone mais kenn garaay laa bëgg ñu may ma chance ta lamb boo ci nekkee ci mel ni kan maalaw séeraas nu ñu may ma chance wala Ondou Lafou wala Alioune Seye duñ rek pare naa pour bëre yow dama leen di may sax sax ñoo ma raw ci di ñaan sama doom yaay caadi montagne di ko ñaanal 3 juillet yàlla defal ko lu gaaw xam nga dox waa montagne asale mental bi su génn gaa doomu gox bi la ko waa tey daa am lu muy représenté gaa yëpp autorité yi génn jàppale caadi montagne yàlla barke maam Cheikh Fall mais dama la bëgg xam doo nga lamb tey kenn du daan say morom da ngay daan ñi ñi daan la lamb moo baaxee a